moom moo ci euh, Khalifa rappeur. moom dafa mhm. ñëw di euh, wax ci ki nga xamante ni moom moo ci doom ci makki sàll mhm. dafa ñëw di wax ne que moom ci jëmbam daf ko doon defal euh, tentative boo xamante ni daf ko bëggoon a rey maanaam moom loolu doon joxe ci ay explication maanaam ci ba tey ci événement yi fi amoon ci mars 2021 ba 2023. ci mhm. intervalle boobu la. Mm-hmm. waaye tamit yamuñu foofu noonu kii di Moussa jaxate moom dafa ñëw ci euh, mbir mi nga xamante ni moom moo ñool wàllum loi d'amnistie dafa ñëw di wax ni que loi boobu noonu bu fekkoon ne que du loi boo xam ne loi bu dëggu la. Euh, mm-hmm. tey jii nii ki nga xamante ni moom moo di euh, Diomaye ak Sonko buñ ñu toogee ci nguur gi mu leer leen ni que ñoom seen jëm bopp ñoo nekk ay ñoo nekk ay ennemis principal yu Macky Sall. Mm-hmm. dinañ ñëw gën a indiwaat ay leeral ci mbir moomu noonu ci bo ci bëtu Sénégalais yépp ñu xam ko. ok jërëjëf waay macha allah. Mhm. Ah, loi amnistie bi de <laughs> yitteel na ma de. Ah. <laughs> baal sa bopp laa ko tuddee. <laughs> baal sa bopp. baal sa bopp. Macky Sall lañ jox réew mi dig 2012. Mhm. ba ñu demaat ay élection mhm. ñu amal ko mu bokk ci. gars yi génn yaa gañe ñoom système bi kañ ñoom ñoo ne moo gañe ba damaa gëm buñ ko tegoon ci yoon dañoo waroon dem deuxième tour waaye si démb tànk ji moom ci boppam mu ñëw daan ne sa waa ji moo gañe jaar nag Khalifa jaar fa ak bëgg faa jaar ak Sonko bañ Sénégal yi bañ ko. dafa bañ Sénégal yi bañ la ko. amaana bu ñun bañ bu Karim bañoo noonu wala Khalifa bañ a noonu. sénégalais ànd ak ñoom bañ la ko. Mhm. ci biir loolu. ñu xam ne fañ jëm ak Ousmane Sonko mooy xañ ko du bokk ci ay élection am nañ ko de fexe nañ ba bokk ci ay élection waaye loolu moo gën ci moom. Mhm. ci biir loolu. Ah. maanaam ay manifeste am fi ay bakkan ci. ñu mhm. dem boobu émission amee. boo ci dugg di wax say mbokk naan la del wax ndànk ñu ngi lay déglu nga dem ba mu di publier ay retaan ñuy la jàpp Macky Sall toog ba nguuram gi jeex ñu war a nga xam ne nit ñi dañoo war def campagne Macky Sall ne damaa ajandi élection yi maanaam damaa ajandi élection yi Sénégalais yi bañ génn ko du ci dal ay bakkandoor ci mm-hmm. ñu dem assemblée nationale proposé loo xam ne ne dañuy am li fi li fi xew. maanaam li fi xew ci sa nguur la fi xewee maanaam léegi kon nit ki am na droit jiiteem réew maanaam ay takk der ne fa ay mur fi ne fa ñu ay gone nga toog sa nguur gi jeex nga bëgg a dolli sa bopp ñu am ñett ñu ci daat xaw ma ñeent. Hmm. nga jékki-jékki ne léegi am si bi foo force dañ koy woote daanaka la parce que bu ñu koy waxantoo lépp Sénégal yi d'accord woon hmm. mais bi. loi boo xam ne da ngaa def say toj toj ba pare nag baal sa bopp ku jiitewaat réew mi boo bëggee réew mi da nga dimbali ci loi boobu mooy nu la askan wi ñi doon raye ku leen joxoon ndigalal ñuy rey ñër fi ñu génn fital yi ñu yoroon kan moo leen ko jox bal ya ca nekkoon kuñ ko tiire cin foqut ba yax ga ca nekkoon bëgg na nas loolu li ñu sa lu lijjanti ko loolu sax lu baax nekk bu réew ci pénc ku ca dala yaa daloon xet rek. te ay fetal la dóor ci dëkk bi ay nit a ko waroon nañ leeral loolu am na sëbi nañ ko teg ci tegaat ko ci taabal ji teggi ko ba mu set wicc ñu teg ko fee tout ku yoon war a topp yoon topp la kon am na ci loo xamante ne nii Sénégalais yi ñoom ñoo dëgg yàlla ndax buñ fekkee ne tey dafa demee noonu même njiitu réew mu fi nekk. bu neexee nga def lu la neex foote sénégalais seen bopp bu ci ay bakkanotee nga xalaat ne mbir na caa am nga baal sa bopp fekk yaa yor majorité assemblée nationale nga ne léegi ngeen baal seen bopp ci biir baal bopp googu am na ci ay ministre ñu jiñ leen ñeen ñi xaalis ñeen ay kër ñeen ñi ay trafic ay ay ay ay maanaam ay ay ay xaalis bu baaxut ñenn ñi ay ay député ñu mel ñoom dañu doon trafic ay ay ay passeport loolu lépp lépp xew ci réew mi réew mi jaxasoo pëccoxoo am ci mun noo ñàkk leeral danañ ko leeral insha allahu rabbi buñ ko leeralee moo gën ci réew mi ndax bu ëllëgee kii ñëw di toog day xam ne bu fi defee naka sudu noonu bu baale boppam bu ëllëgee bu bu këree ñëwoon ne ko li nga baaloon sa bopp léegi réew mi nee nan baalatuñu la ko woo leen àtt leen boo laajee dem kaso ngeen dem kaso mm-hmm. loolu ku fi tegu ci ku fi ñëw xam nga at quatre-vingt ñaata yoon laa leen ko wax article quatre moo tax leen léegi njiitum réew bu xool yàlla dëgg dëgg dëgg jàngut maanaam dëgg dëggantaan njaay lan moo nekk ci responsabilité at quatre-vingt boobu mën naa tax ngay def la neex mooy da ngay def lu la neex waaye bu taxaw daal ci sa kaw rek article quatre-vingt mooy ñëpp ekkub saro moo salaamaaleykum ñu jàpp ñu bu kaso ku fi jaar def noonu ku fi jaar def noonu mais ñi nga xamante ni maanaam ba yow mal da leen di yor rek buñ jiite Sénégal ba xabadan ñoom dañuy def rek ñu nekk ci rek ku toog def ko lu ko neex boo meree bu ëllëgee maanaam kenn ñu defaat la loolu nga xam ne yow da ngay stressé ba keroog ngay dee loolu mënut a nekk ba ca ba ca des mooy uh-huh. yàlla dogal na uh-huh. ñii bërki démboo njaay wen wen 4 mars yàggul uh-huh. cinquante quatre virgule vingt huit pour cent ñoo gagné ñoo ndax ñu demoon woote ji hmm. woote googu ñu li Sénégal yi di gën a bàyyi xel di ko wax chaque jour ci pala ci maanaam ci ci palaas yeeg gaaraam palaas yeeg dañuy gën di wax mooy six six na def liggéeyam hmm. doomu bàjjan nag ak ay doomu nijaay buñ dee xeex xeex ba du métti six six bi fi nekk nii ñoo fi nekkoon ci jamonoy Macky Sall procureur bi fi nekk nii moo fi nekkoon ci jamonoy Macky Sall koo xam ne yéen a nga bokk yéen a doon bokk liggéey def def nañ fi ay maanaam woolu nañ nit koo xam ne wuruñu koo woolu Bassirou Gueye bi ma woolu Ousmane Sonko ca ca marché wente yeeja Ousmane Sonko nekk député Sénégalais yi bañ Ousmane Sonko bañ ne ab député laa am naa mbaral ab kii laay buñ ko sumut du ma dem ñu dem assemblée nationale mm-hmm. fat fat ñu summi ko jële fa ay documents yoo xam ne ay ñag yu def ay ay ay ay maanaam ay tubu yu ndaw ñoo xam ne sa waay kenn xam mënu caa tege daanaka ñu génne ko daal ne lii moo nekk ci lii moo nekk ci document yi nga xamante ci ñoo xam ne ay ñeg la ab paas rek lañ dem jël fa ay photo yu bon ñoo taf ko ci yëf yi ñu leen euh, euh, ko la fii la demoon xoolal jooju tuuma hmm. yàlla ci yëngu ci réew mi kan la xeexal di ko jaay doole di ko tuumaal Sénégalais di ko bëgg nga dem ba kooku tey nekk premier ministre bu Sénégal war a taxaw ñu leeral mbir mi ñenn ci Sénégalais yi naan waaw Ousmane Sonko li ëpp li ëpp daal mooy nan liggéey nan liggéey te bàyyi wax ji barki sëñ Ibrahima maanaam liggéey moom for force la ndax ñoom ñoo liggéey gi moom ab légatoire dañ koy def waaye par A ou ndax li xew kan ñoo taxoon ñu mm-hmm. loolu mënta ñàkk loolu soxna soxla nga ko man soxla naa ko ñu leeral Sénégalais yi li doon xew ci dëkk bi lan la kon ñoom président Diomaye fu leen sénégalais di xaar. di ko waxantoo mu war si si def liggéeyam il faut nu états ña fa ndax ñoom ñoo fi nekkoon di wooloo def seen i mhm. nag buñ tegaatee justice bu jaar yoon nga xam ne amul saatu baa nga nga bokk Pastef nga bokk affaire ci yem boo fi waxee la fuur te wax ñu ñaf la ca kaso ba <laughs> waaw maanaam bu justice maanaam bu bu demee ba réew nekk ci réewum démocratie. bu saa baa nekk fi naan waaw man Pastef laa tax may dof dof na ci kaw dindi bu la fooxee ba dérapé gars yi noonu naan na kaay a dem jaaral nii dem kaso. loolu tax ku ma am ndey ku ma amul ndey di jeex ci réew mi. effectivement ndax kuy taxaw di waat da ngay waat xam ne même buñ la andi woon fa waajur sax nga yóbbu ko ci kaso bi. Mm-hmm. léegi nag mënoo ñëw mënoo ñëw maanaam yor justice yor lépp. nga xam ne da ngaa dem ba suñu institution yi Macky Sall da ko doon da ko daan ambila di ko ambila jël siis bii yóbbu fee taf tafal fii jël kële yóbbu fële jël kii ëddi fii jël waajo yóbbu Ziguinchor far yàlla dogal mu ñëw joxe loo xamante ne Ousmane Sonko la la may dëgg nu ne ko non non non non évancé booba yóbbuwaat ko yóbbuwaat ko tribunal bu Ndakaaru gaa yi ne fa di lëxër lëxëri ab candidat la ba yàgg ñu jekki-jekki daan heureusement Ousmane Sonko mënta bokk mais yi tappalee soxna si <laughs> koo ko xam ne Sénégal yi dañoo amoon ci moom yaakaar yaakaar jooju nekkul ne menam saa Touba moo tëba tëb man Ousmane laa bëgg mais lépp ci Sénégalais yi ñoom ñoo ne moom lañ bëgg ndax moom moo leen ko wan moo leen ko wax gisaguñu nag lu tee ñu bëgg ko dañoo bëggoon ko nañu man nekkoon naa foo xam ne xaalis ma nga fa doon génne waaye benn boo xam ne moo mas naa koo ger na génn wax ay nit yu bokkul fu ñu jógee ñëw daal ne Ousmane Sonko jëflante na ak ay nit. ñu bëgg koo ger mu lànk ko. kooku kooko xëy na maanaam ba mu koy wax aqulaay taalaam la taxawan di wax waa léegi bu ñu amee saaru nit kooku kooku daal de ñu xam ne li muy wax ne yenu na maanaam ndax politiciens yi kat li Ousmane Sonko andi bi bu ñu ko andi woon ñu ñoom waaye dañ dañ koo andiwut li li ko andi tax ñu ànd ak moom ci loolu wax ñu ko ñu xam ko toppee ko noonu. juxum hmm. ñu lekk juxum ñu naan gasal ñu teen dana wan wax ñu euh, wàllam ñu wax maanaam nit mën koo tëgg ba pare ñu toppee ko yaakaar parce que yaakaar daa yaatu. takk jabar maanaam doxaan xale bu jigéen takk ko indi ko ca kër ga loolu yaakaar laa ko tudde xale bu jigéen bi mën a bàyyi ndeyam ak baayam ñu muur ko guddi mu dem kër borom këram loola yaakaar na bu fa demee dinañ ko yor moo tax mu dugg ca sëy ba hmm. Ousmane Sonko dañoo wax lu ñu gëm moo tax ñu yaakaar ko gëm ko dégg nga li ma la wax leer na léegi nag bu ñu demee ba suñ yaakaar jooju ñu amoon ci moom ñu gis ne am nañu commencé ñëw di ko xajamal ci koo xam ne demagut fenn ñeenti weer yi sax des na ñu bëgg a taxaw naan léegi na lépp gaaw te leeral ko nan nan leeral lépp mu gaaw leeral gi état par étape dañ koy def waaye bi ma ci gën a ñor gën a ñor Sénégalais yi mm-hmm. mooy ñu doon rey bakkan ñu doon rey bakkan ñu leeral lool parce que seen i njaboot seen i waajur ñu ngi jooy ba léegi noppeeguñu mm-hmm. loolu man bëgg naa ñu leeral ko ba ca des mooy journaliste si yéen gàcce ngalaama waaye mm-hmm. am ngeen liggéey bu am solo Ousmane Sonko démb maanaam maanaam Ousmane Sonko boros na ko ci ay waxam mooy maanaam dafa baax ci am réew mhm. xanaa xamoo ne am réew réew mën a gën a maanaam réew ma seen ndaw gën a yaru réew moo maa gën a neex a maanaam Sénégal su mu nekk nii tollu nañu foo xam ne ci ci ci ci ci ci politique bu bu salfaañoo mhm. mooy télévision yeeg rajo yeeg maanaam site internet yeeg fi nii nit day wax au lieu que dégg nga déglu wax bu am solo bi nga ngeen jël wax jooju yóbbu ko ci plateau télé waxtaane ko mais dañuy bàyyi ba vendredi ci guddi ajuma ci guddi Ousmane Sonko na léegi lawoon dañuy bëgg mu jeex ci réew mi mooy xale yu jigéen ñi am nañu doraa bu ñuy dem di jàngi ñu musóoroo mm-hmm. nasaraan si du ñëw fii du ñu imposé seen bopp boo ko waaye di war nañ cee jóg xale bu jigéen bi bu préféré na man damaa bëgg a muuru dem jàng ji léegi kenn man damaa bëgg sol baa teg ca si bu ak si ciy wóom maanaam def boppam neen ñu ne ko yow bu la neexee nga jàng see noonu. Ah. waaye yow mii ne dangay ñëw pour jàng si moom waroo muur. dëgg la. ci réew moo xam ne nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent yi ay musulman lañ yàlla nañu na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen muuru. Hmm. muur seen ay cër. te boo xoolee ci loo xam ne xel mën na koo nag bu ma ko waxee ba daaneel ngeen xam ko booy xool jigéen juy def boppam neen. ak jigéen juy muuru ñaare da gis ji def bopp men dañoo tàmm di am problème bopp bi métti lool. Hmm. fi ne jigéen sa jigéen boo tàmmee boppam nen boo demee bay dugg 30 ans 40 ñaar li ci ëpp da ngay am problème bopp da nga naan sama bopp bi day métti rek parce que muur bopp dafa am solo bopp jigéen dafa oyof dafa des ko war di muuru. Hmm. donte man nga léttu rafet na ci lan mooy moo ma jàpp. maanaam gerefaas rafet na moo ma jàpp waaye kaaraange gi gën ci yow mooy li ñu ne maanaam ku ko def dara mën na laa daal bu ko def. Hmm. léegi nag français ñoom ñu ñëw sénégal yi ne leen léegi wala ñe yenn ci école yi léegi kuy dugg ci école bi amoo droit def nangam te ñoom nee nañ bitim réew ca France ñeen ñi nee nañ ku fay nodd naag ngay nodd doo fa nekk di ko di leen tàngal. Mm-hmm. ñu ñëw fii ba gën a suñu école yi doo ci ñëwee waroo mosoo te moom sunum réew dangaa mën a dangaa mos a gis kenn ko ku avancé ci laa ko jàmbur te nga yor sab làkk yow. non boo demoon ci école yi sax di bonjour ngay wax boo ne salaamaaleykum gaa yi xoolante. dëgg la de. te réew mi ñu fi nekk. Mhm. kenn ku ci nekk la nga maanaam loo ñàkk ñàkk dégg bu dee wolof dégg nga ko bu dee séeréer dégg nga ko bu dee pël dégg nga ko booy dem booy dem ci ako nga ne salaamaaleykum mënoo ko nga ne nga ne njóo ko mënoo ko nga ne maddaal <laughs> wala nga wax la nga xam wala nga wax la nga nàmp mais pourquoi pas ngay ñëw ay bonjour ay bonsoir ay comment yi nangam nga xam ne sa waay complexe nañ bas. yéen ñii ci ne bi nga doon wax bi ngeen doon joxe ay xibaar ci wolof naam ci ci ci wolof juum ci gars yi duñu leen wax dara de waaye ko doon wax ci français juum ci sa mbokk somali si ñoo njëkk wax naan ah waay sa mm-hmm. war a jàng somali si nii dañu war a a jàng te juum day am dëgg la mais boo juumee ci français yow jàpp sa bopp xam ne tey nga dee te yow wolof bi nga nàmp yow boo ci doo ko wax lu am solo nga wax boo ci xam nga li ma naan wolof moom ku ku tiit wax ko mm-hmm. ku ci ku ci ku ci bëggoon a jommi wëy sama nday ngay wax. doo nu ah. ko tubaab waxee wëy sama maman doo ko wax de wëy saa nday ngay wax. <laughs> dëgg la léegi nag nee nañu léegi. koo ne sa nday saa mu jàpp ndànkoo saaga. complexe gi la ñu tubaab bi def ci boppam. san bi nii nii nii xoolal euh, fi ne Ousmane Sonko fi ne bu doon wax benn baat ci français sax jub ñu ne non gis nga Sonko déggul français te Sonko gën ko jàng français yëwuwut ci réew mi daanaka. te pourtant bu ko man dégg naa sax ko ne président Mhm. mais loolu foo koy teg maanaam bu jomaay waxul français maanaam nit waxul français ci réew mi de yow mi boo laa kenn français waxe ko normal mhm. maanaam nga xëy suba bëgg ko waxaat juum ca la nga waxoon démb du nangu ne yow man nga ko waaye dangaa juum duñ ko nangu de. Mhm, xamoo la ñuy wax. xamu moo xamul moo daa xam dara moo du doon nii rek la ñuy def dana war dem jàngi xam nga Sénégal li ma ko yàq dem jàng ñaari benn livre ñëw toog na journaliste nga fekk yow li journaliste yi jàng lépp jàng ko mais juum day am. doomu aadama doomu aadama kese la. Mhm. nañ bàyyi sénégalais bu ci neex boo bëggee dem musóoru ji jàngi musóoru ji. Mhm. boo bëggee dem sol ab garaam bu bu sol ab garaam bu bu dem jàngi. Mhm. l'essentiel mooy la ñuy def ci sa bopp bi moo am solo. mais du ci col. lu ni nga sol boo demee da nga ko summi képp xam-xam bi dugg sa bopp bii moo am solo. ba ca des mooy yow fexeel ba yor comportement boo xam ne. imaginal tey tey bu fekkee ne yàlla daa dogal nga gis xale bu jigéen boo xam ne wala boog li ëpp ci gone yi ñi mhm. dàq jàng wala boog ñin wax ne ñoo dàq jàng boo xoolee genn wàll gépp dañuy muuru dëgg la boo xool ba ci biir laal mhm. maam genn wàll gépp dañuy muuru te boo xool même ba ci koñ bi ba ci mbedd mi ba ci biir kër gi ba ci quartier bi xale bu jigéen bi nga xam ne fexe na bay orienté di muur boppam maam di sol ay yére yoo xamante ne nii mën ngaa sol tubéy mhm. man ko suma ko sol tubéy mais dama ne mën ngaa sol tubéy ba pare am mais li gone yi def sol ab baa di wëtt wëtt ci biir kër gi <laughs> jekki jékki sa papa na la eh li nga sol doy na wax de maire bi naan non moom fii rek la jëm mais ci biir kër gi la yem garawut te bu koy maire bu yónnee bitig ba baaba la yóbbaale. <laughs> xale bu jigéen bu muuro bi ni muuroo ci biir kër gi. buñ ko yónnee ci bitig ba noonu lay muuroo. te sol baa dem ci bitig ba day jaay saatu wàcce bopp kon bu man temps booy bi temps moom booy bi daa mool commencé dox say mbir bu xale bu jigéen bi génnee muuru ba jekk romb ma. man saa tubaar maanaam eh kii du kii kii daa mel ne doomu imaam kii est que du soxna si dëgg nag soxna si ngay dégg de yii soxna si daa yii soxna si du ma wax wax nga xam ne même yàlla moom xam na li tax ne dee muuro. Mm-hmm. nga xam ne day gone yu góor yi sax dañ ci sa comportement. dëgg la barke suñu Fallou Mbacke gone yu góor yi dañ lay respecté sa comportement ànd leen yéen ñaar kenn ki muuru kenn ki muuru wut ñu ñëw ni kii dix-huit heures ñu ñëw ni kii maanaam wen teel war a wen deux heures maanaam ki muuru moom moom bala ngaa gis classe bi saa Touba gi taxawum ci mbedd mi waaye kii nga sol xam ne tubéy la boo ko yónnee 17 heures ci mbedd ci poñ na ba fexe na ba na ba di jaay ay mbiram moom mooy li mu bëgg fexe na ba fexe na ñu toog sax wax ku ciy wax wolof na ne de ab politique am na solo. lu ne lu ne ñu de ko gaaral ñu di ko nasaraan bi fexe na ba xeebloo ñu suñu bopp. Mhm. te wóor na suñ fàllu li ñu am ñoom amuñu xaaj bi xaajaat ba. dëgg la mag ñun am ñu tëdd ci dëkk bii moo soowee Sénégal waaye kon Sénégal moo ki réew yëpp ay yem. Mhm. waaye suñu kilifa diine yi ñoo ñu aar ba tey jii. kon li Ousmane Sonko wax nañ nañ ci ànd ak moom accompagner ko te xam ne xale bu nekk am nga droit bu la neexee nga kaalawu muuru ba pare jërëb sareet def ni ñuy def di ko muur di ko yóbbu bu la neexee yow l'essentiel mooy liñ la jàng nu dugg sa bopp bi. Mhm. nan bàyyi seen caaxaan yi jërëjëf dëgg la merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Sa Touba di wax rek.